bu len faté abonné ci sen sen YouTube Samsung TV jant bi leral aduna té activer cloche de notification bobé ngeen sen Samsung ci sen écran samsul huda amat afaaqi Allah samsul huda amat Samsung TV mooy 3, télé. Samsu TV mooy suñu télé dinañ ko seetaan. Samsu TV ñooy suñu télé. Samsu TV mooy suñu télé. mooy suñu télé dinañ Samsu TV mooy suñu télé dinañ ko seetaan. Samsu TV ñooy suñu télé. Samsu Samsu Samsu Samsu TV. Samsu TV. ay waay di ko bëggee waay ba aljana ana waa daara ji Shamsu TV la ñuy bëggee ba aljana ay ba aljana waa Shamsu TV di ko bëggee waay aljana mu def ci benn scénario boo xamante ni bu am am solo la scénario boo xamante ni tabarakallah boo ko déglu rek say rek dafay daw waaye soo koy déglu rek dafa am fu mu lay delloo bu bëri bu ko defee mbokk yi incha allah ñu commencé bismillah ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن إن الغريب له حق لغربته على المحيمين في الأوطان والسكن لا تنهرا لغريب قال غربته الدهر ينهره في الذل والمحن شفري بعيد وجادي لن يبلغني وحوتي ضعفت والموت يطلبني ونلقي أين حيطان صحنين محين لبان يكي يوم حين لبان يلا يوم خيصة تبجان قومين مخين لباك ديجي نيو بحين لكاك جل يا أبو سيسر الشعب واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن زيد العابدين لنا لقاي تدي بلوم سني جامانا جيلا ينكو دمون أوروب wala ku demul Amérique wala ku nekkul Moodu Moodu yow daal la ñuy xoolee bëtu yërmande bu ñu la si biir bàmmeel daal lay gasal baax bu sew daal la fay bàyyi yow kase yow moomu yaa tumuraanke bu dee ki tumuraanke waay am na droit tumuraanke am na droit tumuraanke ci dëkk yi am na droit tumuraanke ci saxuwaay mu ne bul fekk mukk koo xam ne dafa tumuraanke nga di ko gëdd wala nga di kau xeeb wala nga di kau xoolee bëggu ki dafa wérati lu tax nee na jamono daf koo sëf loo xamante ni ci ay torox kànge ci ay musiba attanu ko mu ne man Zayd la abidin sama tukki gi de gudd na lool li ma yor ci yóbbal mënumaa yóbbu mi ngi mel rek ñu daan dem Europe di ci sëb seen i ceeb seen i lépp seen i biscuit seen i bidon essence ñu dem ba ci digg àll bi seen essence jeex mu ne sama tukki bi comme noonu la mel gudd na sori na te sama yóbbal bi mënu maa yóbbal mënu maa yóbbaale wax ko wati daaw fat wal moo fi yàlla yàlla suñu wëni te nee na sama kàttan néew na lool te saay nekk dee mi may dàq ma di ko rek mënu maa fexe ba ba rëcc ko تعلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بقاء ولا خوف ولا حزن أنا الذي أعلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني نينا سما توكي غي غودينا سما يوبال نيونا تاتال نيونا te saa su nekk dee bi am te li ma ci gën a jaaxal mooy am naa ay bakkaar yoo xamante ni des na yàlla rek moom moo ko xam ay bakkaar yoo xamante ni def naa ko ci lu nëbbu wala la ci feeñ te leer na ma ne sama dund gi des na dinaa tàbbiwaat ci leneen waaye nee na yàlla moo baax yàlla moo baax moom mi nga xamante ni maa ngi nuur ci def bàkkaar mu bàyyi ma ci rek ma ahlamallah kenn gëmuta la nga ma bàyyi ci biir rek dégg waxuma dara te maa ngi continuer sama bàkkaar yàlla rek di ma suturaal mbokk yi nañu roy yàlla ci jikko boobu bu bàkkaar doon xëy

anniversaire te anniversaire bu ñëw weer yaa ngi dem année yaa ngi dem te seetlu ma sama bopp benn rëcc bu ma def seetlu ma sama benn jooy ñu may def wala ma tiit wala ragal li am tey yàlla daf maa jox occasion ma lankenkaare bañ ko exploité xanaa li ma koy exploité rek mooy li mooy ak di def ay naka su dul noonu te bëtu yàlla di mi bëgg a teg teggiwu ko أدبت في عفلة ذهبت يا حسرة بحيت في الحلب تخرقني دعني أنوق على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بتذكير والحزن دعني عنك عزلي يا من كان يعزلني لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني دعني أثق دموع لن قتاع لها فهل عسى عبرة منها تحلسني يا زلة الكتبة في الأطلس الذهب من واي واي قال واي من زين العابدين كوجب من أي بكار يو خمسيني ملايك يجدل نجمكو تخف نجمكو تبقو فرسيني غلاب كاي غني بو خمسيني دفعي شخص مخول ديكو mu ne waay waay yow di jàpp ne dama tumuraanke bàyyi ma ma jooy sama bakken bi bàyyi ma yuuxu ko a dog jamono ci di fàttaliku ay banne ay ay naqar yoo xamante ni amee naa ko ay bàkkaar yu bëri mu ne daa anta azli ya man kaana yazulu nii nee na yow mi may yedd ndax sama tumuraanke yi boo ma naan xanaa ci dafa am lu dal waaye kii du wat boppam bi

سبيلي كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراس وأيديهم تحلبني كأنني وحولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني ويندبني وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أرى الطب هذا اليوم ينفعني وازدد نزعي وسار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفح ولا هون waxoon na la sànq ne la moom dafa am ku mu teg bëtëm moom Zeynul Abidin am lu mu gis te ñu bëri gisuñu ko moom xelam yëpp mi ngi ko def ci bis buñ ko dugalee ci bàmmeel ba dem bàyyi ko moom kase moo tax mu ne loolu mooy tumuraanke mu ne ñu naan Zeynul Abidin mii dafa tumurànke leen mu ne na ngeen a xamul lu xew rek muy imaginer boppam nee na ka ànd ni bay na jullil ahli muntariha nee dafa mel ne dañoo dajale famille bi yëpp man nekk ci seen biir man kase ñu teg ma ci kaw lal seeni loxo di ma ëlbati ko ëlbati ko waat nee na ñëpp a ngi taxaw ñu ngi yuuxu ñu ngi commencé di yaakaar ne kii dundal ji ñu ne daf leen woo diw sàngam ñi ñu woo docteur ñi naan diw sàngam ba ko dalee ci seen sàngam lañ ko yóbbu woon dem leen ngeen yóbbu ko bu ko defee mu moccal ma moom la alquran di wax wa qiila man raa wa zanna annahu l-firaaq waltafati s-saaqu bis-saaq waaye nag ilaa rabbika yawma idin il-masaaq docteur naa docteur ñu wooyu ko garab boo garab ñu jox ko ko waaye bis bisu dee garab mënu ci dara docteur mënu ci dara sëriñ mu ñu ci dara ak directeur mënu ci dara nee na li lépp luy xooti docteur rek dem nañ mooyu ko waaye jour boobu noonu amul benn docteur boo xamante ni jëriñ ko am na amul benn ordonnance boo xamante ni bindal nañ ko ko mu naan ko rek mu jëriñ ko nee na maa ngi sentir ni malaakal mawti di xëccee sama roox commencé ko ci tànk yi di ko xëcc képp boo xamante ni rek ruux bi saxoon na fa rek maa ngi dégg ni koy visé moom malakul mawti

fu mu saxoon ci yaram bi rek maa ngi sentir lu muy génne nee na bi ruux gi génne nga dégg kuy wax na benn mu taw a jàll ni muy xuróoree noonu nee na maa ngi ruux gi ni muy génne mu naan sërërë nee nga gis sama yuut yi yëpp di romb nga xamante ni bu nga daan dund boo yuutee bu la gisee ne yuut sax da ngay gis sa bopp waaye nee bu malakul mawt bu malakul moo di leeral ci ruux bi nga gis yuut yi ni muy ni muy génnee ci bi bu nga defee bët yi daal di jëm kaw bu nga defee ay mbokkam commencé delloo bët yi ñëpp daal di gën a néeg bi soxna yi commencé yuuxu comme it te yuuxu ginnaaw ba ñu woowee képp ko ñu xam ci ab docteur jàpp ne rek war nañ koo mën a génnee ci feebaram boobu mu tëdd ci kaw lal bu ko defee ñu commencé dem leen jëndi càngaay kii naan estati ko kii naan xool sa ki naan tàggale sàngam tàggale ko dëgg sàngam booba fekk wax ji génn na. gi ñëw ba xëy ne la kaay jël la yóbbu say soppe di jooy يغسلني وقال يا قوم نبغي غاسلا قزحا خرا أريبا لبيبا عارف الفتن فجاء nee na bu ko defee ci la gën a bëgg ci nit ñi moom mooy njëkk a yàkkam waaye gaaw leen jëndee ko kër gi waay gaaw leen yóbbu ko mbar ko ma waay waaye gaaw leen dem jëndi glace balaa muy yàqu waay bu ko defee ñu ne gaaw leen dem seeti boo xamante ni mën na koo sang mu daal lay sang sang bu set lépp bu ko defee ba woo ay nit ne leen gaaw leen ana sangkat boobu muus ana sangkat bu mën a sang ana sangkat boo xamante ni bu teel ak ñam la. parce que sang néew du n'importe qui moo koy def parce que da ngaa war a téye sa gémmiñ lépp secret boo gis rek soo ñëwee nga nëbb ko moom la mbokkee di woon ana sangkat bu muus ana sangkat bu mën a sang bu ko defee ñu dem benn woo benn waay mu ay yéreem lépp yére bu mu soloon rek su vêtement yaag kalasoo yaag lépp mu summi ko daat lay def yare mu neen daat lay wétal bu ko defee ñu daat lay teg ci kaw jàgg bu ko defee ñu daat lay sotti ndox bu ko defee yow kase lépp dem bàyyi la astabal ma dundangi bi ay wa astabal ma min fawqi wa ghassalani غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن والبسوني ثياب الداك ما ملها وسار غادي العالمين وأخرجوني من الدنيا فوا أسفا على رحيل بلا زاد يغلعني وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وقلبي من يسيرني لأنه أسكب الماء من فوقي وغسلني لكن يوم mu summi samay yére suñu ma ma set wécc yéegal ma ci kaw jàkk ji sotti ndox sama kaw pour sang ma mais dina ma sang ñetti sang bu ma jot sangee ñetti sang ba pare woo mbokk yi ne leen indi leen càngaay li ñaat mooy solal li càngaay loo xam ne amul daamine eh. càngaay loo xam ne eh. amul carrelage càngaay loo xamante ni amul bouton càngaay eh. loo xam ne amul broderie noonu lañ ma koy sàngee bu ko defee wa zaara zaadi wa saara zaadi xanuuti xiina xannabati xannatoni sama yóbbal kese mooy li ma defal ci Kaafuur ak li ane moom mooy sama yóbbal nee na wa axrajuni min addunia fawa asafan bu samay mbir ci wàllu addina jeex na ñu daal di may jëmale bàmmee mu ne fawa asafan nee na waay woo naa sama tiitaar yi benn voyageur boo xam ne da ngay voyagé te li nga war a yóbbaale dara matul moom laa doon wax sànq xëy ci gaal war a dem Europe jël léppam def ci biir gaal ci biir gaal bi ñu def ci digg gaal ci digg géej gi essence ba jeex seen dund jeex nee na waay voyageur boo xamante ni comme war a def déggagu fa te dundam presque jeex na. dundangi li ay naxe bañ. وانتلفوا خلف الإمام وانتلفوا وقدموني إلى المهراب وانتلفوا خلف الإمام فصلى فصلى على فصلى وأنزلوني إلى المقراب وانتلفوا خلف الإمام ثم ودعني صلوا علي صلاة لا لا ولا سجود لعل الله يرحمني وأنزلوني إلى قبري على مهل وقدموا واحدا منهم يلقفني وكشف الثوب عن وجهي لينبرني واكتب الدمع من عين فأغرقني. woo mbokk yi ne indi leen càngaay li ñu indi càngaay li sangu ko génne ma ci àddina nee nañu woo ñetti fonkal ñaari may jàppi ma xool sama ginnaaw wala ma sant ci sama ginnaaw mbooloo mu bëri di ma ñu ma jëlee ci buntu jàkka ja daal ma fay teg dat ci ginnaaw ñu woo imaam mu di ma jullee di ma jullee ba pare mu tàggu nee na jullee nañ ma jullee koo xamante ni amul ko jullee goo xam ne amoon sujud te ku rek dañ ko def pour yàlla yërëm ma nee na ba ñu ca pare ñu jëlee ma foofa te buntu jàkka ya ñetti góor wala ñeenti góor yanu ma ñeenti ponkal yanu ma jëmi ma bàmmeel wàcce ma ci bàmmeel ndànk te bàmmeel am na gan tey wa qaddama waahidan minhum ila hudibi wa defee ñu tànn kenn mu jiitu dugal ay tànkam daal di yooru néew bi commencé coole commencé na kóor ñi naan wax leen waaye ñu def ñu naan leen xeet bu jub ñu naan jaxase leen suuf si si boo ko ci fa tooba. nañu ne mbokk mi dugal ci biir bu ko defee ñu daal di koy jottali bu dugal ay tànkam ñu jottali ko néew bi te defee mu nekk sawar lool taxaw ànd ak ak sawarte daal mooy dugal ci biir bàmmeel daal di jël bant yi teg ci kaw néew ak ñax yi yooyu yëpp daal koy teg sa kaw de kase ndeysaan bu ko defee bu wax ñi nga àndal sotti leen suuf si ci kawam ñu commencé di góorgóorlu di sotti suuf si rek di jot ci suuf si rek di jot ci suuf si rek ba kenn gisatul wa qaala hallu hallu alayhi turba waxtanamu xusna sawaabi min arrahmani bi jigéen bi nee na bu ko defee di jot ci suuf bi ba mu fees sa kaw yow ka fekk ci ak lëndamaayam nee na lëndamaayu bàmmeel nee na yaay nekku fa papa nekku fa mbokk bu am jëfee yow bu lay yëkk ci nekku fa yow kese yaa fay nekk ak yaa fay nekk ak say say jëf yaa asafa nee na woo naa sama tiitaange alal firaase bi laa amal ñu sawul si nii ci teqalikoo boo xamante ni dañ koy teqalikoo ak soppe yi teqalikoo ko ak papa ak yaay nga xam ne li ñu amee cofeel si nit teqalikoo ko ak soppe waaye teqalikoo ko ak wala ak sëriñ wala ku mu mën lu mu la bëgg bëgg lu mu la topp topp bu demee ci buntu bàmmeel ba rek lay yem wala nga xam ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon mooy dëgg Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dundal ci kaw

جدا فأفزعني وأقعدوني وجد في سؤالهم ما لي سواك إلهي من يقلصني فامنن علي برف منك يا أملي فإنني موثق بالذنب مرتهن تقاسم الأهل مالي بعد من شرفوا وسار وزري على زهري فأثقلني واستبدلت زوجتي بعلا لها بدلي وحكمته في الأموال والسكن nee na ñëpp dem nañ bàyyi ma ko man kese ak sama wéetaay nee na ma gestu yem ci melokaan boo xamante ni ba ma ko xoolee sama fit def ne rës ndax ci tànge di nekk ci man min hawli mutala ma qad kaana adhashani nee na li ma gis ci biir bàmmeel bi mun ko fi imagine bu mel ne dafay nettali lan ak lan la gis mu ne min munkar wa nakiir mooy munkar ak nakiir bi nga xamante ni bu ñuy dugalee nit ci biir bàmmeelam ñoom ñaar la fay fekk ñoom ñoo koy posé ay question man ràbb ko kan mooy sa borom bu nekk yàlla baaxee na ku daan góorgóorlu di def yiw ci kaw suuf mooy rabbi yàlla man aw ma benn borom bu dul yàlla bu ne ko yàlla baaxee la bu ne ko mën na fi ko man yonente nga doon topp ci àddina bu ne ko yàlla baaxee la ku daan topp Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne nabi bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko man maa kitaabu ka ban téere nga daan jàng bu ne ko yàlla baaxee la ku daan góorgóorlu ci alxuraan di ko jëfe mu ne kitaab yi alxuraanul karim ñu ne ko maa diinu ka ban diine nga doon servir bu dee ko yàlla baaxal la mu ne diine islam islam mooy sama diine waaye mbokk yi mbokkul tool bii kase kase taxul ñuy wax de buñ la waxee naan la lii la mën bëri àddina kii di laaj tax nga dem jàng ko mokkal ko taxul nga tontu ko lii tax nga tontu ko mooy nga nekk di ko pratiquer. ba mu ëllëgee bu la munkiran nakir ne man rabbuka maa diinuka man nabiyuka maa kitaabuka yàlla dafay dëgëral sa lakk nga tontu leen rek man ci islam la nekkoon am na ci ñoo xamante ni yàlla daf leen di baaxee sax ba ñoom dañuy mujj di posé question malaayka yi na leen yéen kan mooy seen borom bu ko defee ñu def may toogal di ma laaj te laaj bi may laaj kat maa ngi si waa kat ilaahi yu xàlli si laaj bi may laaj amul kenn ku ma yaakaar mu dëgëral sama laajte ku dul suñu borom moo tax mu ne fadlu na alayya yaa am fii nit yaa amali yàlla lay tàllal loxo ne ko yow mi nga xamante ni aw ma kenn ku ma yaakaar ku dul yow maa ngi lay tilu nga tim ma jéggal ndax lan fa inna ni mutaqum bi dambi mutahali samay bàkkaar dafa bëri lool te di te bu dul yow rek pour ma ci génn na bu ko defee loolu yëpp ma koy xew ca biir bàmmeel ba waaye nag famille ba njaboot ko ñoom ña ngay séddoo alal ja bu ko defee samay bàkkaar ak samay rëcc rëcc rek kese laa defee ak samay gépp bu ko defee sama soxna moom dem uti beneen jëkkër commencé xeesal balaa ñetti weer ya mat examen yi mat ki neen takk ko bu dee góor la tamit balaa ñett ñetti weer ñeent mu fàtte la daal di takk keneen bu ko defee kon loolu tax Seydina Abidine wax ne kuy wër ku tumuranke rek kii mooy ku tumuranke mooy ku ñu dugal ci biir bàmmeel bàyyi la fa yow kase ak sa وصيرت ولدي عبدا ليخدمها وصار مالي لهم حلا بلا ثمن فلا تغرنك الدنيا وزينتها وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هراح منها بغير الحنط والكفن خذ الحنان min dunya ka warda biha law lam يكن laka illa rahatul badani neena bu ko defé xob ci doon ak alal ji jabar ci doon nañ alal ji doon yi séddoo nañ alal ji neena sama doom yi sax commencé nañ légui dem uti mental yi nekk ci ya sama alal ji ma mo mu ci nekk sen alal alal joo xamné ñakku ci ko alal joo xam ne liggéeyuñ ko lenn rek lañ ci am mooy seen baay dee na yéen a koy doon moo tax ku am alal gaawal nga góorgóorlu ci def ci lu baax parce que ñi koy bàyyee moo xam ay soxna la moo xam borom la moo xam baay la moo xam yaay la moo xam ku ci mën doon moo xam doom la xamoo lan la cay def ëllëg moo tax mu ne alal ji mu dina lekk ci seen i loxo alal joo xam ne liggéeyuñ ko defuñ ci dara xanaa fay ngay rek dina leen gën a ko moo tax mu ne moom Seydou la adabi ne yow li may jàng sama xasida bi nee na unzur ila du unzur ila man hawa dunya bi ajma'iha nee na xoolal kii nga xamante ni sonn na ci àddina lool di dajalaat guddeeg bëccëg teelul nelaw teelul yeddal nee na hal raaxa minha bi xayri xamdi wal kafani nee na lim dajale woon yëpp est ce que am na ci lu dul kaabuur giñ ko wis pour mu bañ a yàqu wala ñetti mètre percal yi nga xamante ni moom lañ ko muuree mu ne la nag xudul anaata xudul anaata min dunyaaka warda biha nee na lan la waay sa addina jëlal doylu muy sa kër law lam yakun laka illa raxaatal badin nee na soo jëlee doylu bu doon sa kër di ar di kaw addina nee na naflaay yaram la ciy am yëpp alxayri taxsib baadahu tamaran yaa daa ya alxayri mawquufun ala alwahami nee na yow mi nga xamante ne yaa ngi ji yiw amal ne soo ko jiyee yow nag yaa koy góob

defee kon Zeynul Abidin nee na yow bakkan bi bàyyi sa mooy yi ngay def takk ji ci àll nga la waaye dama takk ci yiw dama takk lu baax ndax yàlla yërëm ma la allah yarhamuni mu ne yaa nafsu wayaatu tuubi waa amari xasana nee na ko yow bakkan waaye xaj ndeysaan tuubi tuubal waa amari xasana te nga jëf lu rafet asa tujaazina ba'dal mawti bil hasani mën naa am soo dee def lu baax yàlla mën na laa fay soo génnee àddina bu dee dëgg la àddina nee na nag walhamdulillahi mumtina wa musbihina maa ngi sant yàlla mi nga xamante ni moom mooy indi suba moom mooy indi ngoon ànd ko ak yiw ànd ko ak njéggal ànd ko ak rafetal ànd ko ak ay xéewal mu ne summa salaatu alal muxtaari sayidina ginnaaw ba bu ñaanal suñu sànn sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaan boo xam ne ci lépp ba melax yaa ngi melax day na saami wa fi jaman yi diggante saam ak jaman ci lépp gën melax ñu koy melax rek yal na yàlla di bind sànn say suñu sànn sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu nga defee kon imagination boobu noonu la déedéet aada bi imaginé woon ñu jàppee ko ku tumuraake jàppee ko koo xamante ni wérul alors que ni moo gën a wér waaye bëtam fam teg mooy di jur ngeen ci bàmmee la yëpp lool moo taxoon ni ñu naan ko ci dafa dof ci dafa tumuraake mooy fi ngeen xamoon li ma xam di ngeen ma yedd fi ngeen xamoon li ngeen xam di ngeen ne kii dafa dof waaye dafa jël béréb yëpp ak tëb après dee te après dee rek mooy affaire bi kon bu ko defee ñu waaroo ci loolu waaye nga xamante ni Abidin way na laysa al xaribu képp mooy jullit nga mën ci

di jooy lu yaarab ba nga yërëmal ñu aadama jàllo abul aytaani wal masaakiini tàggu nañu képp ku ma dun yaa joxoon xëy na bis jal ko abonné ci seen seen YouTube samsu TV jant bi leral aduna té activer cloche de notification bobé ngeen di seen ci seen écran samsul huda amati ya. afaami ya, Allah ya. samsul huda amati samsu TV mooy suñu télé Shamsu TV mooy suñu télé dégg nga ko seetaan Shamsu TV ñooy suñu télé Samsu TV mooy suñu télé. mooy suñu télé. Samsu TV mooy suñu télé dee leen ko seetaan. Samsu TV mooy suñu télé. Samsu Samsu Samsu Samsu TV. Samsu TV. aljana ay waay di ko bëgge waay ba waa daara ji Shamsu TV la ñuy bëgge ba aljana ay ba la ñuy di ko bëgge waay aljana